Bonjour chers auditeurs, nous parlons de l'endoscopie gynécologique, une pratique chirurgicale des plus sophistiquées de la pathologie gynécologique. Le professeur Maguette Mbaye, gynécologue, enseignant-chercheur, revient sur les avantages de cette prise en charge. L'endoscopie gynécologique euh, intervient globalement dans tous les domaines de la prise en charge de la pathologie gynécologique. Et c'est une voie d'abord qui autorise d'opérer la quasi-totalité des pathologies gynécologiques sans ouvrir le ventre. Il s'agit d'interventions assez précises qui permettent des gains d'intérêt en termes d'esthétique, il n'y a pas une grosse ouverture, en termes de gains sur le séjour hospitalier, il y a très peu de douleurs post-opératoires et en termes de gains également dans les complications infectieuses parce que l'ouverture n'étant pas grande, donc l'exposition du pelvis n'est pas également importante. L'Organisation mondiale de la santé a publié le tout premier rapport sur la filière de développement de vaccins contre les infections dues à des bactéries résistantes aux antimicrobiens. L'analyse de l'OMS attire l'attention sur la nécessité d'accélérer les essais de ce type de vaccin à leur dernier stade de développement et d'accroître autant que possible l'utilisation des vaccins existants. L'épidémie silencieuse de résistance aux antimicrobiens résistantes sont en effet associées à près de 4,95 millions de décès chaque année et 1,27 million de décès sont directement attribués à la résistance aux antimicrobiens, mais ces résistances ne se limitent pas aux infections bactériennes. Ce phénomène, selon l'OMS, se produit lorsque des bactéries, des virus, des champignons et des parasites évoluent et ne réagissent plus aux médicaments. Lorsqu'une personne est infectée par ces microbes, on dit que l'infection malheureusement difficile à traiter selon l'OMS. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. dalle nag jàmm tey li ñuy waxtaanee mooy endoscopie gynécologique ci ab xeetu faj bu mucc ayib boo xam ne dañu koy jëfee ci wàllu gynécologie professeur Maguette mbay di gynécologue enseignant chercheur di ñu xamal ngëne li am ci boobee xeetu faj. endoscopie gynécologique xeetu opéré xeetu opéré boo xamante ni buñ koy def duñu tijji biir bi. wala buñ ko dee tijji tamit ouverture bu toqee lay nekk boo xamante ni euh, mëtul sax lu tolloog dijjaayu baaraam ouverture boobu ñuy tijji baaraam xaju ci et que ouverture yu toqe yooyu ñuy def pour dugal ci caméra pour dugal ci ay instruments yu gudd dinañu permettre ñu mën a def lépp li ñuy def loo xamante ni ñoo ngi koy gis ci à travers caméra bi ñoo ngi koy gis ci lu mel na télé ci lu mel na écran télé ci la ñuy xool di opérer li ci biir et que loolu permettre nañu ñu mën def xeetu opération yépp yi am ci gynécologie te duñu ubbi biir bi de ce fait dina tax douleur yi après duñu bare infection yi duñu am parce que duñu tijji biir bi dina tax tamit du am lu ñuy wax ay adhérence parce que du ñu xotti lu bari donc ci biir bu dee wér ak di cicatriser euh, organes yi du ñu taqaloo donc dañuy teqalikoo bu baax mm-hmm. et que malade yooyu nga xamante ni opéré nañ leen ci xeetu opéré boobu du ñu am ay infection yu bare te du ñu yàggu hôpital te ñun suñu hôpitaux yi dafay fees torop feesaay boobu muy fees lu bare buñ ko bëggee soulager wàññi ko dañu war a fexe ba maladie bu ñu leen opéré non seulement duñ fa yàgg hôpital bi mën a soulagé wu mais malaat bi tamit mën a soulagé wu ndaxte ay parents wam jaabante bi oto bi mhm. lekk organisation mondiale de la santé publié na ab rapport am bu njëkk soxal vaccin yi nga xam ne dañu koy defar ngir xeex ak doomu jàngoro yi nga xam ne garab mënul ci ñoom dara OMS nag dafa gis ne dañu war a gën a baral liggéeyu xeetu ñàkk yooyu ba ñu tàmmale ko jëfandikoo ci askan wi ndax résistance aux antimicrobiens di xeetu jàngoro yoo xam ne garab mënulu leen dara dafa toll ci stade mbas te problème de santé publique la feebar yooyu buñ ko dee at mu nekk lu ëpp ñeenti million ci ay doomu aadama ci àdduna si waaye nag résistance aux antimicrobiens yemul rek ci ay infection bactérienne ñu ngi koy nemmeeku tamit ci jamono joo xam ne virus champignon wala parasites yi dañuy law ba garab dootu leen mënal dara te nit bu loolu tëddal dañuy jàpp rekk ne dafa am résistance médicament médicaments antimicrobiens maanaam doomu jàngoro yi ne ci yaramam garab mënalatu leen dara te xeetu feebar yooyu faj leen dafa de la santé fi la ñu yem ak yéen ci seen xibaaru wér gu yaram ñu yendoog jàmm